sëriñ si war see def attention. Mhm. muy feebaru bët. Mhm. feebar mooy dernier sens. Mhm. bët. lépp loo say dugal war nga ko xam. duñ la jox lii rek ne la sël moo ko nga ñëw kii de. ñi cataracte. xam nga dafa am feebar boo xam ne cataracte. beneen bi glaucome. glaucome yooyu yëpp. amna na xamne ne ne mm-hmm. gis nga fièvre bëri dafa am yo xamne ne mm-hmm. dem nga si médecin mënu si dara bul sonna sa bop di dem si sëriñ si dañ lay gumbalo rek ni bari jaare nañ sa gumba mm-hmm. dafa am lo xamne ne and ak beut yu ci terrain ma wala beut yo xamne ne ne dafa nekk euh, Euh, am ay ay problème bët moom bu commencé fullu rek. mu mm-hmm. commencé santé rek gaawal dem bul ko sàggan. Mm-hmm. moom surtout bët. waaw waaw léegi nag am na bu fekkoon nag bu fekkee da lay doog a dal. Mm-hmm. mooy li may wax rek dafa am secret yoo xam ne bu fekkee daf lay doog a dal. suñ borom mën na la see may ndam. nga mucc si. suñ borom mën na la see may ndam nga jóg si. waaye Feber feebar bu mu mën a doon mhm. xam ne nag muy allahu rahman allahu rahman waaw mhm. garabu ngi gis ngi gis waaw garabu ngi gis waaw nga fexe si am juróom-ñaari xob juróom-ñaari xob ñu bindal la allahu rahman mhm. bu la ko ne fa kasaf naa an ka xitaaka waaw ñu boole ko si xooj ko loolu nak dañu bëgg asaman ci tim ko ba bët set mm-hmm. maanaam bu dee da nga dëkk ci kaw terrasse nga tek ko si kaw ci kaw mm-hmm. asaman ci tim ko ba bët set bu dee kii nga tek ko ci ëtt bi asaman si bu ko ub dal mm-hmm. waaw ndox mi dal asaman si ki ko ba bët set waaw bi léegi daal nga ci ba bët set waaw gis nga yéwo ba la ngay dem ci lenn di sang euh, di sëlmoog yooyu njëkka la sëlmu si ndox mom gis nga boo njëkkee sëlmu si ndox mom bayyi nak ba jant bi di génn mm-hmm. nga jàkkaaroog jant bi mm-hmm. nga jàng bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. euh, euh, nga jàng ko 374. 374 waaw. nga jàng fa kasaf naa bi. waaw 17 euh, fois. 17 fois maanaam. noonu muy tamponné sa bëri lépp loo xam ne ne jàngoro boo xam ne dafay nekkoon wala taq-taq yoo xam ne dafay nekkoon mhm. noonu lay dañee maanaam loolu dafay désactivé carrément ba carrément sa bëri lay leeraan naññ mhm. waaw waxu na man toujours samay wax mhm. waxuma koo xam ne dem na ba chronique waaw moo tax feebar saa soo commencé santé sa dara sa yaram rek wutal jógul xooli ku la sa tane waaw léegi jamono ji da gis koo xam ne démb ngeen daje fee. waaw wala démb ngeen bokkoon di nekk fee. Mhm. nga xëy suba ñu tàggee la ko. bari na ci waaw. léegi fee ñi ngi soo xamee ne. Mhm. di fi soo xaale jàngoro boo xamee ne ni daf lay ray te doo ko doo ko doo. du naan diw kañ la feebar diw kañ la feebar. waaw fekk na feebaroon na bu yàgg. lu jar a bàyyi xel moo tax yooyu daal feebar yooyu daal mu koy ëpp yu koy joxe surtout mhm. feebar yooyu noonu. waaw surtout mag ñi lay gën di daaneel. incha allah damay mag may mag ñi benn. Uh, waaw bés boo xam ne suñ ko defaree day leeral ñu. bët yu ba kii nii. glaucome bëggoon naa see waxtu. wala ci. di bàyyi tamit booy sëy ak sa soxna. ngay jàkkaarloog awra bi. doom bi si jëlee. maanaam bi day jàkkaarloog awra waaw. man naa gumba mën naa gumba wala bu demee ba màgg mm-hmm. mën naa gumba mm-hmm. ngeen koy bàyyi xel te di ko mm-hmm. bu ñuy sëyeeti fay làmp yi waaw fay leen làmp yi waaw ñu fay làmp yi waaw fay leen làmp yi waaw <laughs> allah kon si maanaam euh, lu may joxe ci solution ci wàllu bët ñaar kese laa ci joxe benn bi mooy concombre concombre soo ko daggee transe def taf ko ci say bët nii tëdd jaaxal pendant sept à dix minutes dafay raxas bët waaye tamit soo ko jëlee mixé ko xolli ko mixé ko def ko jus segg ko ba mu kii di ko faral di ko suukar di ko naan dafay raxas bët concombre concombre allahu nuuru samaawaati wal ard juróom-ñaari yooyu daf ko ci ndox saa yoo xëyee nga sëlma ci benn sa kanam bi dafay leer ku la gis dalay sopp waaye tamit dafay leeral say bët lépp loo xamante ne dafa nekkoon ay mbiru feebar yi nga wax sànq noonu yëpp daf koy désactiver ba mu dëj te nag dootoo gumba di sa giiru dund ba keroog ngay faatu gumba gumba moom araamal na la waaw ah, loolu baax na moom loolu xam kan moo ko joxe. Mhm. Bachir Mouhamed. ok loolu moom baax na lool. léegi dañuy ñëw léegi ci ñi nga xamante ne dañoo amee loxo bu bënn waaw ah, maanaam daal dañuy liggéey waaye duñu réaliser dara lu ñu am dañ koy dépasser ci loo xamante ne ñoom duñu xam sax fan lay xaar bi jaar. waaw loxo bu bënn. Mhm. moom la ñuy gën a wax ne lu ma yor mu dem. waaw lu ma dajale mu dem. mu dem waaw. waaw am na loo xam ne nag dafa war a dem ndax luy ñëw moom dafa war di ànd. waaw loo xam ne ne moom mi ngi ñëw dafa war a ànd ak di génn. Mm-hmm. waaye lépp loo xam ne ne daal yaa ngi am dara. Mm-hmm. wala lépp loo xam ne ne yaa ngi koy am muy demaat. Mm-hmm. toujours maa ngi doon wax benn secret. képp ko mën a tegale ñetti sodi muy alxames. nga koy génne ñebbe bu xonq bi. ñebbe bu xonq waaw ñebbe waaw na doon bu xonq rek. waaw ñebbe bu xonq bi nga koy génne. Mhm. boo dee góor nag na nga koy jox jigéen boo dee jigéen di ko jox góor. Mhm. mooy mooy mooy secret képp ku koy def. Mhm. doo am yaakaar bay tas. daaw da waroon la jox dara. waaw jékki-jékki diglu ko ba nga war koo am mu bàyyi ko déedéet. wala nit digla dara ba war la ko jox bàyyi ko déedéet. déedéet. Lalu mom chaque jour yakar bi tass doto ko amati nit lu digdana la dig dana la ko jox ñebe bu xonq bokay koy saraxee ñetti sodi yu tegalo bu dee ki nga xam ne lum lum yor mu dem yakar mu tass hmm batu yakadu gi do bin way waaye yakadu dem yakadu wa batu yakadu rek ngay bin wa bat be rek ngay bin wa legi batu yakadu bi nga ne mom ngay bin hmm yaa ngi bind nag cent vingt. cent vingt waaw cent vingt mooy famm. famm waaw mooy kiñib. Mm-hmm. nga bind ko cent vingt. waaw nga wut yàppitu guro woo xam ne ne xamoo boroom. waaw wala socc yoo xam ne ne da nga koo for. xamoo boroom. Mm-hmm. maanaam lépp loo xam ne ne daal si giñim la jóge wadd. lépp loo xamante ne ji eh, nit mu ngi koy wax si yow wala muy jóge si giñim. Mm-hmm. mënatu si yow dara. Mm-hmm. moo tax saafara boobu boo ko amee ba sangoo ko ñetti fan. Mm-hmm. waaye la mag ñi daa wax. Mm-hmm. boo koy sangoo na ko sangoo fu dëgër maanaam nga taxaw si weñ. waaw nga taxaw si xeer wala nga taxaw si dara. loolu dañoo bëgg lépp loo xamee. day ñëwati si yow. Ah, dana mën a toog. waaye nag. non ah, loolu leneen sax daakaani we rek. xam nga. te gars yi bëgguloon naye comme comme yow loo am muy dem. Mhm. nga am dara nag dootul demati. ah jox beneen boo xam ne duñu naye nag sëñ bi nag xam nga ci yeneen jox leen yooyu ah. ah, dama xam ne ne li nga am muy muy nii mu mu muy dem kay baax na. waaw ah, daal di joxe daal moo gën di téye rek. waaw léegi nag. Mhm. wa sama wa taarix. Mhm. buñ ko bindee trois fois. ñetti yoon waaw ñetti yoon rek dañ koy bind. Mhm. ñu wut pees cent franc. def ko si. dagg seen wewu loxo. mooy wey nii ñu dagg ko si def ko si. naan si sangu si. Mhm. ñetti fan. waaye mbindeef du leen gis buñ koy sangoo. waaw lépp luñ yorati. dootu tisaaroo. Mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne kenn dàqu leen liggéey. Mm-hmm. mën nañu mën nañu di am weer wi un million. Mm-hmm. waaye duñ ci mën a def dara. lu ñu yor rek te saarewaat ko. wala lu ñu yor rek beneen leneen di kaat. da gis nit koo xam ne ne day dajale dara sax ba ne lii nag suur nangam nii laa siy def. am na suur buy ñëw fee. moom mooy tisaare lool. mu bale loolu lépp. nga xam ne lool nag. mooy lu ma yor mu dem. lu ma yor boo see def lii mu dem. waaw waaye toujours nañu gën di fonk sarax. sarax ndax sarax dafa am solo. Mm-hmm. luñ la mën a jox. Mm-hmm. boo si jàngee li ilaafi xuraysin ñetti yoon. Mm-hmm. Euh, wala nga jàng kaw kawsara ñetti yoon. lu dem ñëwaat. loolu moom baax na. buñ la joxee dix mille nga jàng nga ko si wecceeku sax boo ko tasee leneen ñëwaat. dem di rek rek incha allah. ah kon macha allah ah, amati na solo ma bàyyi la nga ma con ma compter question tuuti rek. aywa kon. dañuy ñëw ci business man bi nga xamante ne nit ñi da koo daw. daa jékki-jékki rek maanaam xaritam yu mu amoon contact yu mu amoon nit ñu mu doon jëflanteel mel ni daal dafa jékki-jékki rek nit ñi daw kooku tey nan la war a def ba ñoo ngi xamante ne dañoo dawoon. wala milliardaire bi nga xam ne daa nekkoon. dafa daanu waaw waaw dafa daanu dal waaw nit ñi daal dañ rek waaw li ëpp li waral. Mhm. muy li nga xamee ne si jamono jii maanaam mooy terrain trian am na. wor am wor waaw. Mhm. surtout ñi nga wor. Mhm. nit wor ko. surtout ñi nga waxanteeg nit si marchandise bii mm-hmm. ba nit ka leer na ko marchandise bii la waxaaleeg ñoom mm-hmm. ñu dem mm-hmm. waat ko beneen marchandise képp ku koy def sa bërëb wala sa palaas da nga si daanu ngay ngay dëkk bépp milliard milliard boo mën a am business kat boo mën a def di wàcce ay oto yoo xam ne ne sukkar la wala oto yoo xam ne ne ceeb la nga dugal si ñub la may nam ngay teriyan ba si sëriñ si nga xam ne ne comme li Serigne Cheikh doon wax léegi am na xaalis yoo xam ne ne képp ku koy lekk. Mhm. daf lay delloo ginnaaw. Mhm. waaw ndax nañ ci gën di bàyyi xel. waaw dafa am yoo xam ne ne ni nga koy lekkee. Mhm. mooy tax yow dalay lay wàññi. da dem ba nga xam ne ni yow sax sa alal lay waat ndax am na dërëm yoo xam ne ne boo ko booleeg million bii rek lu mu fa fekk yóbbaale ko. waaw moo tax bépp business kat wala ngay commerçant mhm. wala nga yor entreprise sax mhm. nga bañ mu daanu mhm. nan lépp di jub nan lépp di leer képp koy jëflanteel na nga xool sa digganteeg yàlla léegi nag nga doxal nag li nga xam ne ne moom ngeen seq dañuy bàyyi wor bi di bàyyi eh, teg dil bi muy trian bi di bàyyi nax nax nit ki nit ki lii laa bëgg jox bëgg bu wuta dara waaw mm-hmm. ah. leneen nak euh leneen nak si jamono ji dafa xawa doy war ndax jamono ji da mm-hmm. ngay am dara ñu soxore la ko yàqal la ko mm-hmm. am dara ñu ne woro ko fe am mm. am dara nit jaar fe di leen liggey pour yow nga ñak sa alal mm. wala yow sa entreprise daanu kon loolu am na fi jamono ji loolu moo ëpp si réew mi di yàqal nit ki nit ki am dara nga yàqal ko nit ki waruma nit ki waruma jiitu kii ñoo màgganoo da gis ñoo xam ne dañ naan kii ñoo màgganoo li mu am war naa koo am bu mu ko mun a am ma hmm. yàqal ko hmm. allahu akbar am ñoo xamee ne chaque jour ñi ngi lay jéem a yàqal hmm. te chaque jour ñi ngi ànd ak yow di fréquenté ak yow waaye chaque jour ñi ngi say tànk pour bëgg laa yàqal motax amna entreprise yu daanu yu bari yo xamne ni ñiko daaneel ñi ngi ci biir entreprise bi ñoy xol say signature diko copier ñoy xol say papier diko décider raxaat leneen am ñoo xamne ne lek gi lay jox ñom ñoo la ci liggéey am ñoo xamee nak ñoy dem si sëriñ di lay yakal ngay daano ko jog ngay daano ko jog nga dem ma nga xamne ne da ngay dégg diiw diiw mi kat amoon nay oto amoon nay kër mhm. amoon nay mm, ay milliards mhm. léegi jeexal na takk mhm. ay doomam sax ña ngi koy won ginnaaw ndax yoratu dara jigéen ñi soxna ya sax ndax jigéen nag foofu la gën a garaawe wallaay boo amee am na ñu la mën a muñal lool waaye bis boo ñàkkee ñu wan la ginnaaw. Mm-hmm. moo tax daal lépp loo xam ne ne kii la nañ koy gën di xoolaat. Mm-hmm. surtout si bërëbu liggéeyukaay. Mm-hmm. waaw te bañ di lekk lekk àq. Ah. waaw nit ki fay liggéey na bañ bu heure ba ngay wàcc bu nee la sept ngay xëy. Euh, sept euh, sept heures. ba teg minute. bu nee la dix ngay wàcc. dix-huit heures boobu. minute kenn ku nekk bañ a lekk àq entreprise boobu yàlla dina si teg loxo nga xam ne yëkkati waaye léegi dafa xaw a yéeme daal. yéeme loolu incha allah. dañuy ñëw ci soxna soo xamante ne dafay dafay dugg ci ménopause wala mi gis règle mais deret bi def deret bi elle semaine bu mu war jël du ko jël. dafay continuer du normal. waaw mooy régal bu retard rek régal boo xamee ne ndax léegi am na ñoo xam ne ni sax ndax régal buy retard nag na ni bàyyi xel lu bari lii ñuy def moo koy gën a mën a waral. mooy planning. waaw planning mii ñuy def. Mm-hmm. moom moo koy gën a waral. Mm-hmm. boo xasee ba def ko surtout ñi nga xam ne planning yi nga xam ne ëpp na. un an jëm kaw. Mhm. mën naa dem ba nga xam ne say régal dootul normal. Mhm. wala mu boole ko say régal. Mhm. ndax gis naa si ñoo xam ne toog nañ juróom-benni at. ba fukki at seen régal ñëwatul. waaw seen régal te régal boobu moom bu ñëwatul pour nga am jàpp ëmb dafay jafe pour nga jël ëmb dafay jafe. léegi nag am na bu dee nag moom mooy xew si jamono jii mu xew si xale yi jigéen ñi nga xam ne seen régal yi du normal. buñ ko gisee tey ginnaaw suba ñu ginnaaw toogaat une semaine euh, duñ ko gisaat toogaat ay kii duñ ko gisaat yooyu yëpp règle bu normal li koy gën a waral muy wàllu jinne bi ci la bokk mm-hmm. moo tax xale boo xam ne ne am nga ko mm-hmm. da nga a jóg mm-hmm. gis nga garabu banaana banaana ganam banaana gi. mooy garab gi. garab gi lay jël wala xob bi wala. non garab gi comme bokkut ak banaana bii ñuy lekk. waaw xam nga bi ñuy lekk. moo am xollit. waaw bële moo am xob. mooy bi nga xam ne mooy cosaan bi mooy nday ji daal. waaw si euh, boobu nag si nday yi nag ngay wut mooy bu gudd bi. ngay fexe ba dagg. dagg ci lan. Euh, maanaam xob bi ngay dagg. waaw xob bi ngay dagg. boo ko daggee. nga fexe dem. Mhm. bu dee fi nga nekk. fi nga mhm. dëkk maanaam sa kër. Mhm. nga lal ko si buntu kër gi. nga jéggi ko góos jéggi ko maanaam nga jéggi ko dem. jéggi ko arrière waaw loolu moom mag ñi daanuñ ko def si si benn séeréer laa ko jëlee woon. Mm-hmm. waaye jigéen boo ko def nga xam ne euh, euh, régalam normal mm-hmm. boo ko defee régalam normal la ah, bu dee côté jinne bi la. waaw dégg mu dee côté jinne bi la boo ko defee rek mu ñëwaat. Mm-hmm. bu dee nag. am na benn faj bu si gaaw lool. muy gerte gi ñuy wax gerte noflaay. noflaay waaw noflaay bii. Hmm. muy gerte kemb gi nga dëbb ko ba mu mokk. mu mokkee nag moom la ñuy wax noflaay. noflaay nag mooy baatu wolof boo xam ne moo gën a yomb daal. am na waaw mooy noflaay. waaw gerte googu nag ngay wut. Hmm. nga bind li ilaafi Quraysin juróom-ñaari yoon. Hmm. boo ko nga fexe nag boo ko defee saafara. sa nga wut kuddu kuddu kafe yu ndaw yi nga tibb si gerte gi yëngale ko si kaas mm-hmm. nga naan mm-hmm. booy tëdd mm-hmm. booy yeewoo boo nekkee ba pare nga defaat noonu boo ko defee juróomi fan rek da nga sa régal day normalaat nekkaat ci war a ni mu war a nekkee waaw ngi noonu gerte gerte noflaay baa ngi gerte surtout góor ñi nga xam ne ne tamit seen ndox. Mhm. normal. waaw gaaw gerte googu tamit baax na si. Mhm. maanaam ndox yi nga xam ne ne farut daal. waaw waaw. maanaam ndoxu góor gu farut. moom waaw baax na ci. si lool. Mhm. boo bindee wa tiini ba naasi. tiini ba naasi. waaw boo bindee wa tiini ba naasi. dafa am foofu secret nag. xam nga da naan secret wa tiini ba naasi. nekk te bi ñu ngi ko dëxañ. ci diggante fukki saar yu mujj yi fii li ba naasi foofu lañ dëxëñ secret bi te secret boobu nag euh, watiini ba naasi mhm. di ko boole gerte noflaay bii muy góor ñi nga xam ne seen ndox normalul mhm. kon waxee nag ndox mu normalul nag walax jaan bi nga xam ne ne mooy tax nga waaw wala jaan boobu mën mana dem ma nga xamne mi ngi dem si volu soxna si bam mu a jël jël fa ëmb mm-hmm. du ay ah, il faut que ndox mi normal mm-hmm. waaw te ndox moom bu normal mom, ëmb pour mu am dafay jafe mm-hmm. waaw moom moo tax mun bindee watiini ba nasi rek le ko gerte noflay gogou mom ku gor ki mu def ko matin kii heure heure bu lekk yi. bu ndékkee bu añee bu reeree. Mhm. saa bu xa bu lekkee rek mu naan si kaas. mu def ko noonu diiru fukki fan. Mhm. da ngeen commencé sentiraat waaye nag la mag ñi daa wax. Mhm. faju sëy boo koy faju doo sëy. waaw ba ci hémorroïde wala. doo sëy. waaw ndax léegi di jël ngóora di faju ngóora ba pare bëgg di sëy. waaye laa soo koy faju soxna si day jël traitement nga jël traitement. waaw ndax am na yoo xam ne ne la si traitement mën nga koo muñ. Mhm. mu ne la lii fukki fan la juróomi fan la so soxna loo xam ne ne du jeex mukk muñ ko jël sa traitement ba pare nga doog a nekkaat si li nga nekkaat ndax booy faju moom na la jaral lu ne wér-gi-yaram mooy lépp. Mhm. waaw luñ la si teg ah, tegoo ko. ndax tey boo demoon si médecin yi nii ñu bind la ordonnance. da nga leen di respecté boo ah, demee feneen nag da leen di respecté rek incha allah. waaw kon amati na solo nañu respecté traitement yi ndax docteur moom daa bëgg koy respecté traitement am. wallaay. waaw su ko defee tan mun a am wér mun a am. waaw. waaw kon euh, dañuy dugg ci sallallahu ala muhammad. wallaay. Muraake autoroute à looy joxe ji sallallahu ala koy tagg naan ko autoroute à péage waaw muraake jóoni jóoni mhm. mu mu mu pause mu mu pause nga nga pause <laughs> ndax mu ndax mu barkeeloo ci xéewal yi. ci xéewal allah incha te neex te neex te neex jëfandikoo lool sax waaw su dee internet bi am na ay question yu ko lu jëm ci tiktok bi ko defee ma leen le nekk ci yitte yi mooy ci tiktok bi ak bii ko defee ku ci am question rek daan koy jël incha allahu taala sallallahu ala muhammad soo koy wax sax ndeysaan da ngay kontaan da ngay bëgg ah sallallahu ala muhammad àdduna. Hmm. sallallahu ala muhammad. ndeysaan. mooy si jamono jii ñu ne. Hmm. mooy fas wi nga xam ne ni si la ñëpp war a yéeg. mooy mm-hmm. fooy jëm fu mën a doon. Hmm. mooy moo la fa mën a yóbbu si lu gaaw. ndax yàlla nag yeneen bi la faral de yeneen bi la faral ah, moo tax adresse bi gën a wóor hmm. boo ñëwee fekk kenn ci bunt bi hmm. bunt yàlla koo fa mën a fekk hmm. jox ko adresse bi rek man waayu yeneent bi laa sallallahu alayhi bi laa sallallahu yalla day yëngal bop ba na sama waji ku ko bëgg ma bëgg la sama waji ku and ak mom ma and ak yow sama waji ku nekk ak mom ma nekk ak yow yalla bam nu santé julli ah danoo bayyi ñuy julli wallahi waye bam nu santé julli ci yenente bi hmm. mënu ko ñëk def ban salatu la yàlla jullee ci yenente bi moo ëlëm gaay de moo ëlëmut waa sallallahu ala muhammad ndax li li naan hmm. yàlla yenente bi la faral hmm. waaye yàlla nag ñun waa sallallahu ala muhammad hmm. mi nuy xool dinukis hmm. <laughs> ya gudik aljuma Gudik aljuma wow. comme tey Wow. bu fekkon ñun wa sallallahu ala muhammad mhm. Suni lim mhm. Lin liggey si sallallahu ala muhammad mhm. mu wara dem sa khadara ba ñoom dañ koy yakamti. ana waa salallahu ala muhammad ñëw nan wala ñëwagoon ana yóbbalu waa salallahu ala muhammad moo tax sa guddig àjjuma ah, xadara ba day nam salallahu ala muhammad ndax leer yim nu war a yónni waaye lu toll ne salallahu ala muhammad fukki xuróof ak ñeent fukki buntu ak ñeent buntu bo laal bu ne hmm. fukki milliards yo xamne ne aw yiw la hmm. yërmande hmm. yalla jéggal la say bàkkaar motax kuy wax sallallahu ala muhammad do am bakkar euh, do nek ci jafe-jafe do rafle da ngay am kom nit ñi dañ lay bëgg da ngay am bayra da sa xol fay lapp li gëna jafé doa doomu adama si mhm. jamono ji nga xamné né mhm. da ngay am temps ba nga xamné né pour waxtu julli sax nga julli ko mhm. fay jafé waye ñi nga xamné ñom ñoy def sallallahu ala muhammad dañi yàkkamte waxtu julli jot ak lo doon fat fat waxtu waxtu ba commencé di liggé sallallahu ala muhammad do ah, do fatati waxtu da ngay yàkkamte waxtu julli wi jot ba nga julli xoolal ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sayaatin ànd ak jinne mhm. non sëñ Cheikh da fee wax léegi mhm. ñoom li li nga xam ne ne ragal mhm. muy salaatu ala nabi di sallallahu ala muhammad gii ndax yàlla da see ñëw wuyu si si mooy salaatu gi nga xam ne ne si jamono jii moom moo réew mi mom mhm. mhm. moo aduna mom moom Afrique motax tax ku jog ne sallallahu ala muhammad motax ñepp ci siy ñepp ci siy mhm. lu neub won lu ne dana feñ ci sallallahu ala muhammad motax tax ko gis mu yor kurusam di dox lu mi def julli ci yenenbi sallallahu ala muhammad mo gaaw si maye dom moo gaaw si ubbi wërsëg moo gaaw si folli nit moo gaaw si fal nit moo gaaw tamit si lépp looy dox nga bëgg yàlla xëccal la ko tegal la ko sa kanam sallallahu ala muhammad si gaaw moo tax booy liggéey sallallahu ala muhammad da ngay dund no stress jàmm ak salaam baadu bége bége rek ngay def mm-hmm. waaw te lu lu xew ci réew mi. lu fi yëngu lu ne di ñëw. boo ñaanee si barke sallallahu ala muhammad. yàlla teggi ko réew mi moo tax réew mi. bu amutoon ndaw ñoo xam ne ñi ngi liggéey sallallahu ala muhammad. su réew mi tukki ne mu yàgg. baadu day jaxasoo. waaw. Hmm? de neex na neex boo xamante ne ku koy wér du moo ko xam ndax. damaa dox benn jour di dox nii di am fu ma dem dox ba ci yàgg rek benn waaye ne ma sallallahu ala muhammad rek ma tiit tourné xool ko rek ma ne ko sallallahu ala muhammad ma sëñ bi nangam ak nangam ak nangam mu ne ko wallaay sëñ bi maa la gën a ala muhammad rek damaa tiit waaye tiit bi tiitu la. moo tax. gis nga wa sallallahu ala muhammad suñu borom da leen defal ab xamul ma lan hmm. sakina sakina man lay moy dal nañ dal go xamantene fuñu nek mu nekk nañ ba jóge fa kenn do xam sen identité ño xam ñom lay looy Manam. ñom lay gis ci ñom jël ngay gis ci ñom lolu kess ngay gis ci ñom manam fu ay werante ay kii la nii la wala loolu loolu doo leen ci fekk. doo leen ci fekk ndax dañoo maanaam ñoom dañoo dépassé foofu. wallaay. xam nga yerente bi rasulullah saa salaam gars yi dañuy wax bëgg yenente bi ñii di tëb ak dal am na ñoo xam ne soo waxee bëgg yenente bi ñoom fu ñuy maanaam ñoom seen lëpp seen lépp dañuy yëg bëgg yenente bi wallaay seen xol seen xel seen ruux seen jëmm lepp parce que ñom dañuy dund yenente moy sank ni nga wax rek sallallahu alaihi muhammad day transformer nit daf lay jógee daf lay jele ci ci ci manam dund bi nga doon dund ak sa banexu ba kenn la ci dund gi ngay dund yalla so nekkon koo xamantene ne jaamu yalla nek ci lu la neex dem bu wàndan ni mu yeeg yooyu noonu soo commencé di si sallallahu alayhi wa sallam xam nga mu njëkk a branche ci yow leeru ngëm. leeru ngëm. gëm yàlla par par force léegi nag leeru ngëm googu di la dugg imaan boobu di yokku ci yow loolu mooy dox di dox ba nga xamante ni ku la gis leer lay gis ci yow. danaan diw de nekk na koo xamante ne jëmm ji dafa dafa dafa soppeeku diw mi daa mel ni dafa yor xaalis fekk leeru sallallahu ala muhammad mooy dundal sa yaram moo tax ku sikkar sallallahu ala muhammad benn doom njàkkare lu nit ñi di bëgg yii nii. lu ci mm-hmm. nekk ay bëgg bëz ak ay fii la xar ay jaar ak ay maaxo yor ak yoy yeb suñu borom dala ci muccal wallahi ndax lan yenent yalla muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ngay dund ci sa xol diko dund ci say jëf diko ko nak ci melo ci melo moy lan moy jikko yi wala ci ko def ka wax ne na soo julli la ngay julli mhm. so daawoon jubal la ngay jubal so nekkon ko xamanteni la nga doon xuloo xeex fii la xane ngay jaare bay daw la nga koy bàyyi te la ngay commencé yero ba pare nag kep ko la gis dalay sop bëgg bi ngay bëgg yenent bi mom la lay nit ngi di delo waaw parce que yenent yalla Muhammad déjà ñun ñëpp dañoo jëd bëgg yenent bi parce que so jëlé Muhammad 92 92 mooy Muhammad. Hmm. mu nekk miim ak akdel, ak mim ak deel benn miim bi dañ koo sadd mu taxawee beneen miim ci biir mun jox la ñaata 132 te ku judd am na xol. doomu aadama yëpp am xol. waaw xol googu noonu nga judduwaaleel xol googu moo bëgg Muhammad. donte yow mi nga xamante ne sax judduwoo ci jullit waaye yow sa xol moo njëkk a bëgg yenente bi moo xam yëg nga ko moo xam yëgoo ko léegi nag mu des dund bi nag waa sallallahu alayhi wa sallam loolu loolu la ñu moomee moo tax ñu rawee ci képp koo xamante ne meloo ni ñoom léegi Cheikh mu bëgg nga jox nit ñi ay dog ci sallallahu ala muhammad waaye damaa bëgg nga tàmbalee ci benn côté Mhm. xam nga mooy fan. waaw mooy ku bëgg benn. ku bëgg benn. waaw xam nga xam nga xam nga fan yi damaa dégg benn kii defe naa ni TikTok bi daa ko déggee te xaw ma lan benn xaw ma waaw loolu daal ku bëgg benn daal. <laughs> waaw ku bëgg belli waaw belli belli moom jigéen ñi bëgg nañ ko torop ak góor ñi tamit non jigéen ñi ñoom ñoo si gën a kii classe daaw daawda gi moom mooy loolu classe daaw daawda gi mooy loolu